dox di fo wey naa buurante wey naa mooy yàlla wey naa ngir ma dem naa bànneexu wey naa reeteku wey naa xew-xew yi ci ñetti fan yi di jeexital lu am solo ci yoonu murit ak ci àddina bi midadi wa aqlami liman sax saxal yama كما ساسا سيدان والجهل jahla wal وان mahalla wa an معاسي بالباخل لسي ختمتي رما من النار واسيتا نقد مستم دما بربي إلى خدام من هنده الأسماء wala moo war ñoom ñaar ñu àndi fi ñëw lii may wax it sëñ Madou nee na lu ci mu ci xam lu ne sëñ Abdoulaye Diop ko nettali a bu mbir yooyu yëpp xewee. ku ñuy wax bay sëñ Ndiaye Anta ñu gën koo xam ci sëñ Ndiaye Kaang wax na ma ne ma keroog bi ma Mouhamadou Moustapha di ñëw gis naa ko maa ngi taxaw mu ngi sol garaam bu baxa mag damay nettali sëñ Saliou doom daf may nettali ne ma fekk na boobu am na baa goo xam ne waajaloon na ko ngir dugal ko ci bernde yi da ko jox ngir mu yóbbaale ko ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal. ko déggaale ne sëñ Modou Moussa dem ñaaxeen. la jaar nay de. nekk mooy tubaab yi mas nañu woolu Cheikh Moustapha ndax ñoom jàppoon nañu ni sëriñ bi. te loolu même boo demee ci rapport bi ñu ngi koy wax. avril wey naa toroxlu jot naa wayablu jot naa ngir Bàmba dem naa. waxtu yoor-yoor jamonoy nawet ñépp xëy tool kër yu wéet. àll ni kërim lépp selaw ni sendaw kenn déggul dara lu dul xale yu ndaw sa sabum picc yuy dal ak naaw ngelaw liy riir ba fa mel ni kuy wax mbaate kuy jottali ay wax jooju ci gox yu fasantikoo mbir yu lëmu te kéemaane di fa bàyyi ko lépp di kumpa ci képp ku mënul dégg jeneeni wax Touba Kaël ak juróom-ñaar وانسى القديم ولاية دوم دبي هل في الورى من سكن المصطفى وانسى القديم ولاية دوم دبي لي موغي خوي ديغنتي فكي وقتو بفكي وقتو اك بن سي صبح انا المصطفى وانسى القديم ولاية دوم دبي ci dëkkam boobu nag fa la nekk ba yàlla dogal ci bisub dimanche bi jiitu bis bi nuy waxtaan mu war a tolloo ak dimanche fukk ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit 1346 sëriñ Mouhamadul Moustapha bi nga xamee ne xëy nañ ba toog ba def xéewal yéeg wàccaa yu ndekki yépp ba yeggal mu am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna li lu yëg-yëg boo xam ne xëy na ci mom nattu la kenn mu ni tek am yag mu jéggat pilian bi mu togon jaar ci buntu sarale bi wuti toog kërub ñam bi bu mag bu ne ci gannaaw kër gi mais eh, ba mu ak ratanga fa gu mag mu taxaw kepar keppaaru yor yor ba mu joge señ mor jandam mo jog top ci mom señ mor jandam jog mami señ sëñ sonlo mo jog top ci moom eh, bi mu señ mo do Sa wax ko ni ko man de dama jaaxle wax na ni sax daa jëkk boole loxoom yi noonu muy def ci kanam ba boot ko ci gannaawam delloo siwaat ko ni ko moor man de dama amuk jaaxle mu ne ko mbàkke yow lu la war a jaaxal suñ moor ni ko ah sëñ bi yow mu lay jaaxal ah, am naa lu ma jaaxal jaaxal mu ne ko dafa am lu ma wax de te ki ma ko wax bu waxee la mu wax garab mu ko dindi loolaay la am ah, mu ne ko loola nag moo di dañu maa xamal foofu ma ne moom di ñëw ne ma bu amee ñeent fukki at dootoo mën a amee kilifa fii ci kaw. bu ma amee ñeent fukki at deetuma am kilifa te sëriñ baa ngi fi. loolu yi de jaaxal na ma te fii ma taxaw di wax ak yow maa sama ñeent fukki ñu tegal ay bés sëñ Mor ni ko ah loolu de doy na jaaxle tuuti sëñ bi ni ko baax na dellu mu del si toogaat suñu yeewi mag ñi ñaanal leen na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey te lépp lu ñu leen di tere ngeen moytu ko ba kenn du leen ci seen wax leen ni leen ni dama bëgg a jëm weti Tuubaa jaaxle jiixi jaaxa tàbbi mbër ma laxas fere ya fëx wër ba tàmbali mu bàyyi ko foofe dëgmal Tuubaa mu fay jóge itam ànd na ak lenn nit ñi nga xam na ñoom la nekkaloon ku mel ne sëriñ Mor Jàndam Jóob ca mbooloo ma la bokkoon ak euh, ku ñuy wax sëriñ Codé ñaan moom itam ca mbooloo ma la bokkoon ñi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Moustapha woon na leen ci bis boobee ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima la ñett ñooñu la àndal ak chauffeur bi nga xam ne moo doon dawal wata ba ñu di ko wax sëriñ Aliou Bey moo ànd ak ñoom jógee foofee ca Touba Kayal wut si fii ci Touba. Touba Soura Touba di diggante midi jàpp benn waxtu. bi ñëwee Touba itam jamono yooyu Cheikh Mouhamadul Moustapha mu ngi dëkkee Soura man raa muy foofu yi njabootuk sëñ Maxtaar Bintaloo gi dëkkee foofu yi la kër gi nekk jamono yooyu ci Touba ñëwee itam dafa dugg ci biir kër gi rekk génnaat yàggut dara. mu jëlaat oto bi wuti Tindodi bi mu demee Tindodi itam ku ñuy wax bay sëñ Njaay Anta ñu gën koo xam ci sëñ Njaay Kaang wax na ma ne ma keroog bi Cheikh Mouhamadul Moustapha di ñëw gis naa ko maa ngi taxaw mu ngi sol garaam bu baxa sor ay dàll yu puur moom it dafa dugg ci biir kër gi rek daal di génnaat jël oto bi wuti jaar nay de jaar kellal darum yesu sura man raa ak tarba munuko defal mu way usnul maab mbir mo du fofu mu romb kellal jaari ñaaxeel tindóor tindor la xey jaar nay de jaar fi jall kéléel diggante benn waxtu ak ñaari waxtu ci bëccëg kéléel Ma Xureeja Jóob moom itam dafaa jaar rek romb jàll bi mu jaalee nag dem ñaaxan te ni ma ko dégg ci ci bi may gone walla laa jot a dégg moom Ahmadu Ma Xureeja mooy maami Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mooy waajuru soxna Fatma ci bu mi jur Serigne Cheikh Ahmadou ma xurajee ñu ni ko dafa dem tool laaj ko ñu ni ko dafa dem tool ñu ni ko ndax ñu wooyi ko mu ni du ko mat waaye fa la bind ab bataaxel yónnee ko xëy na bu ma wàññi ko danaa fi jaar dama jëm nii ci kaw muy génn tuuti fa la jullee tisbaar door a jël otoom di wuti dëkkam bopp yi di ñaaxeen dajale wey naa mbër ma dem naa ñu dem ñaaxeen jaar na daarul Mawti fa jaaree itam nee na oto bi jàll tuuti mu seen sëñ Ablaye Diop. si fekk ma fekk ma jógee lew na am li ma bëggoon doon ko fi lijjanti si bi ma ñëwee lijjanti bay génn nag tombanteeg waatib sañ bi di di agsi nee sëñ bi xool geesu gis ma daal di wax safar ma taxaw mu daal di may def ni loxo ma daal di dem sa mu laaj ko ana waa lew na laaj ko itam lu muy dox mu ne ko am lu mu fi doon lijjanti si rek mu wax ko ne ko su fekkee oto bi ndox mi dana ko mate de nga bijjanti ma ñu jëm ñaaxeen sëñ Abdoulaye ne ko dana ko dana ko man mu nekkoon bijjante ba loolu moo war ñoom ñaar ñu àndi fi ñëw lii may wax it ma Madou nee na lu mu ci xam lu ne sëñ Abdoulaye Diop ko nettali ginnaaw bu mbir yooyu yëpp xewee ñu déparé foofu wuti ñaaxeen daaru ñaaxeen ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ya ahla ñaaxeen ñaaxu leen Cheikh Moustapha ñaaxaat na leen mi kalaami soga ñaagi du leen jarfal ndaxa Moustapha ñaagaat na di kalaami soga ñaagi ngaay daaru ñaaxeen daaru ñaaxeen itam ay tool la yoo xamante ne ni maam Cheikh Anta moo ko ko joxoon ci 1922 loolu yabal fa sëñ Mat la ñaaxeen wax na ni bi muy dem ñaaxeen la waxoon ak moom ca biir néeg ba waxaat na ak moom ci biir oto bi waxaat ak moom ci biir oto ba oto ba taxawul ñu ngi dox ko wax yooyu wax yooyu ci la bi ñëwee itam ba nuyoog njaboot gi ñëpp xam nañ ci taarix ne e, way juram maam Cheikh Anta Mbàkke moom mooy ki nga xam ne moo ko joxoon dëkk boobee foofee ba nga xamee dem na fa fekk na ñoom it nag toll nañ ci di war a bayaat dugub mu wax ne ay feneen la nekk fii comme ni ma la ko joxe naa la fi mu ne ko netti mooy toog booba toog mi ngi fii ñu fi nekk mu ne ku ñuy wax sëñ daam si la ak ku ñuy wax sëñ daam booja moo jëkkee seen benn wata bu ndaw boo xam te ni dafa dugg ci kër gi waaye nag booba ñi mu ko wax sëñ mat si la ndax eh, sëñ mat nangul kuy liggéey di seen dara di ko wax ginnaaw bi ñu bay mu yàggaat ki dib jarbaatam seen ay wata bu ndaw bu ci toppaat mu ne ko sama nijaay bu ndaw bu jëm ca kër ga mu ne ko wata bu ne mu ne ko bu ñuul la de mu ne ah kon de xanaa loolu dara la ba mu ko ne xanaa kon lool ba mu ko ne xanaa kon loolu dara la dama seet kaa ko suñ daam boo ji ko ne boobu ko jiitu woon na ko léegi fekk na boobu bi ko jiitu ma watab sëñ Abdoulaye Diop lew na sëñ Abdoulaye Diop Léona itam lii may wax sama bàyyi nee na sëñ Abdoulaye Diop Léona moo ko ko nettali. Uh, waaye loolu bu fekkee ñi nga xam ne ñoo jàpp ne dimanche la jóge woon Touba te jàpp itam ne ci dimanche jooju la fanaan ñi ñaaxeen bu fekkee ci rewaaya boobu muy solo boobu ci lañ sukkandiku daañu gis ne am na ñaari guddi ca ñaaxeen. bi ñëwee it ñu woote ñu woy sëñ Madu ci tool yi bi ñëwee ci gaaw bi nuyoo. Seydina Mouhamadou Moussa moo ko xamal ne ko yéen kat wuti ngeen tundoo li ma bàyyi ko léegi am nawet ndax ñoom dañuy door a bay baxaw sëñ bi ne fekk fekk na booba ne noo ngi tool yi ci war a bayaat waaye sëñ Mouhamadou Moussa nuyu moom ne ko kat damaa jëm njaareem li tax ma jaar fi nag damaa xam ne moo fi jaarut ci yoon yi damaa xamul kañ ma fi mën a gaawatee ñëw moo tax ma jaar waaye njaareem laa jëm léegi sëñ Mati la wax ko ne ko de moo ne kun dimbali woon de eh, fanaan ba suba dee doon suñ dimbal mu ne ndax lan mu ne ko damaa woote woon tool bi te ma xam buñ defi déggam ñëppay ñëw te kon ñëwee liggéey bi dana doon dimbal na teel a yegg daaru ñaaxeen altine fukki fan ak juróom-ñett ci tamxarit diggante 10 heures ba 11 heures ci suba bi jant bi laataan naaj dara tool bi àgg na mu wax leen ne leen toog leen ko ma dem yëgal ko ki ni liggéeyal ñu wax ko ne ko tool bi la àgg na mu wax ko ne ko na nga dem wax leen nañu daje fi benn barab bu yaatu toog ma ñëw fekk leen fa ne ma ñëw ne leen kat mi ngi ñëw kon nañu woo ñëpp ñu daje fi benn bërëb ne noonu lañ def ñëpp daje ne ma wax leen ne leen boo xamee ne mu ngi ñëw nag bu kenn dema joxe loxo bu kenn jógit na kenn ñëpp boo fi suuf ba mu ñëw ba toog ba wax li muy wax ba dem kenn ku ne door siggi fa nga toog neen noonu dem lañu def mu ñëw nuyoo sant nu ñaaxaan ju taalibe ni ngeen góor-góorlu ci liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci ndigal wax ko ba mu yetti woon daal taal ay ñu taali mu ñaanal leen بيجب لما زاد سهاني أنس صرت خديما مصطفى مثل أنس بيجب لما زاد سهاني أنس صرت خديما مصطفى مثل أنس بلغتني وقلت لي إحسانا ورثت في من عندني حسانا ورثت ñu daal di wut si kër gi ci altine ji neen tàkkusaan di jot euh, sëñ ma nee na ma dem yónnee sondeel booba xam nga suñ jamono ji xam ne sëñ Tuubaa liggéeyam bi maase la fépp mel ni àjjana biti foo jaar lamp du jaxwetul kenn booba sondeel a xew yu rëy yu ñor naan dañ ko si pot ma xam fanaane tàkk mu wax ne ma yónnee ci benn pot bu mag mu ñëw ne jant bi so mu xamal ma ne ma boobu ba mu ñëw mu ne ma nga feree ne leen kees gi bu ci kenn fanaan ne ñëpp fanaan ci penc ma ñi may jàng alxuraan nañu jàng alxuraan ñi may jàng xasaay nañu jàng xasaayit ñi mën a tudd yàlla ñu tudd yàlla waaye kees gi moom bu ci kenn fanaan mu kees gi wër néeg bi mu nekk nee na ma toppatoo loolu bi jant bi soo. daaru ñaaxeen diggante juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti waxtu ci ngoon. bi ma ko nee reer bi noppi na ma dafa ne wool Ablaye Diop te jox ko ko muy sëñ Ablaye Diop mi ma àndale woon Daaru Musti ma wax sëñ Ablaye ne ko reer bi noppi na mu ne na ñëw. ñu réer ma ne bi sëñ bi deel ma waxaat ne ma ndax fere bu kenn fanaan fii na ma wax fere yëpp daal di ubbuntu bi daal dikk nee na may bëgg a taal lamp bi mu ne ma lamp bi a taal mu ne ma bàyyi lamp bi ngeen di bëgg a ñëw di bunti mu ne bunti ma tëwub sëñ ma di nee na booba na sama dina xaw naa rëcc ndax kilifa gu nekk ci mu néeg ne lamp bi mëtt a taal bunti ma tëwub nee ma daal di génn daal di boofi bunt bi nee na ma dégg maaji der bi ñu wéekoon ne déer fi suuf daal ne allahu akbar nee na ma léegi muy juli di sëlmal di juli julli sëlmal ba julli la ko soob toog di jàng alxuraan di jàng xam ba gën a def sab sëñ ba ne ma recette ndànk di fëgg jigéen ñi neen jóg defal ndéegoli neen jóg defal di bi daataan bi jant bi daataan fenk ndéegoli noppi mu ñëw ndéegoli ndéegoli noppi ne mooy wal Abdoulaye Diop te jox ko ko ma woo sëñ ma wax ne bii ndéew ko ba noppi ba yattaay nee na ma dikk jox sëñ Ablaye ci wetu ndi jooram fi ginnaaw ndànk ne ko mu ne ma gees ma ne ko dangaa wax sëñ bi ne ko ginnaaw nit ñi ñu bari xamuñu mi ngi fii te jamono bi dafa métti ci wane métti na ci moom daa wax ko mu noppalu fii sëñ Maodo ne ko gees na mu ne ko ah, waxul dara de xanaa da laa ci coono yi rek bëggoon nga noppalu fi nee na sëñ Modou Moussa ana wata ba fekk ne wata ba kër sëñ Maale Sab gi dañ bu jant bi so bu demee ñu làq ko foofa mooy ne wata bi ñëw dañu daal di indi wata bi dañu daal jël bagage bi dugal nee na bi ñu bëri nu ñu génn mu ne ma fi tasu ne maa gaat fi suuf ndànk mu bàyyi ba ñëpp génnee na mu yëkkati juróom fukki dërëm ci booba juróom fukki juróom booba defe naa ak fi nu toolu xaalis bi dana rawante na loolu sutante ci doole ne ko su ma demee nag ma ko yokku ñu Habib Dia waaye nag na nga néeg ba ma jox ko na nga néeg ba ma dem nga door ko ko jox nee na sëñ bi dem ma daal woo sëñ Habib ne ko sëñ bi moo la jox lii sëñ mu daal jóg ñu daal di aw yoonu ngembe bi wuti gaawaan Daaru Ñaaxeen talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tamxarit digënté juroom ñenti waxtu ci suba japp fukki waxtu doomu adama la suñu borom tan def ko khalifam ci suuf téréwul mu def ko insaan muy wàcc ba suuf mbër ma jëfandikoo insaaniya ak nite ba mën a wax ak jaam ña terewul kaddu ga delusi, si naa ko wéyal gawan gaawaan diggante fukki waxtu japp fukki waxtu ak benn ci suba a bâtiment bi ñuy jàkkaar lool ci la seigne Modou fekkon Cheikh bâtiment bi tam ab étage la won ci jamono yoyoo ndax commanda bi mu dikkee ci kaw la néwon moko mam Cheikh Anta waye ginnaw bi la étage bi daanu motax mu mu wat fofé mu xeyé fa kon bisu talata, yor yor talata yor yor bu xawa naaj ci la xëyee ñaaxeen wuti ndiarém ba mu wuté ndiarém itam fi la jaar fekk fi borom gawan mam Cheikh Anta Cheikh xone sama taw bu baax ba xam naa ngan gi ma doon dikk tey jii la ko yàlla dogal. fas yéene def ay bernde jàpp ne day yendu waaye xam naa ci biir waxtaan wa mel ni moom itam mu joxe ngànt ne daal du mën a yendu daal bëgg ñu jéggal ko sonn na ci sax moom maam Cheikh Anta bëggoon mu yendu lool ngir ni mu fonke gan waaye sëriñ bi itam ñaan mu jéggal ko ngir mën a yendu mag damay nettali sëñ Sariwu doom daf may nettali ne ma fekk na boobu am na baa xam ne waajaloon na ko ngir dugal ko ci bernde yi da ko jox ngir mu yóbbaale ko ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal. ak saakub cere ni ko ginnaaw boo yend woon danaa la ganale añ baa noonu sëñ moo door fee bàyyi ko wuti njaareem. yàlla dogal na baa googu sax sëriñ Madou Lamine Touré. dëkkoon ca turan eh, turee ga ca ndulo moom la may baagoogee yàlla dogal mu wéy yenduwut keroog wax nañu diggante tisbaar ak takkusaan la àgg njaare mooy booba tisbaar weesu na te takkusaan ak séewut boobu lay door a agsi ci bu mubaaraka ci këram googu ci gànnaaru kër sëñ njareen talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tam xaret diggante ñett jàpp ñeenti waxtu. Allahumma

foofii la wàcc dal ci biir kër ga nag ñi dégg ko fa di ñëw di ko siyaare ak di ñëw di ko nemmiku ku mel ne sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana danañ ko tudd ne fekk na ko foofee ca kër ga ak sëriñ Maxtaar Silla danañ leen tudd ne fekk nañ ko foofee ca kër ga wax sëriñ Mat Lamin xamal ko itam ne ko sëriñ bi kat fan yi kon dimaas ba léegi daal xamuñ ci moom dara. sëñ Modou ni ko baax na naka noonu itam sëñ Maxtaar Silla ñëw na fa moom itam xamal ko daal ni ko sëñ bi daal mat naa nemmeeku. laaj nañ sax ña nga xam ne ñu féete foofu ca moom waaye dañoo xam nañu wax barab sàngam na bu juróom dëgg waaye boobu ba léegi xamuñ ci moom dara de boobu ba léegi di moom yënguwul dañ ko ko waxee itam fekk foofee mu toog mbooloo ma bari na. mu jàpp loola waaye teewul mu nekk fa di maslaa ak mbooloo mi di waxtaan ak ñoom di waxtaan di waxtaan ba yàlla dogal timis jot. di maslaa ak ñoom ba ca bañ jullee timis ba pare nag sëñ Modou woo sëñ Mad Lamine Diop Dagana woo sëñ Maxtaar Silla léegi ni leen kon bisimilah. bi timis jotee ba ñu julli timis ba yeggal nag da daal di rocc ko ndànk. ci jataay boobee mu nekkoon ci kërëb goppam ga ànd ak euh, sëriñ Maxtaar Sille moom ma tuddoon léegi ak euh, sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana moomu ak sëriñ Ablaay Jóob na ak sëriñ Cheikh Jóob sëriñ Cheikh Jóob Xari Jeng ñëw ci kër gu mag gi seet si sëriñ bi والإمام المالكي عليه رضوان كريم الخالدين waktu diggante ñaar ba ñetti waxtu وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم sëñ Modou woo sëñ Mat Lamine Diop Dagana woo sëñ Maxtaar Silla léegi ñu leen kon bisimilah jaare ci bunt bi ñuy wax buntub sëñ Masamba dugg si ca biir kër ga laaje itam fere yi yoroon caabi yi ñu xamal ko sëñ Cheikh fa tàkk moo yoroon kees googu mu la woolu ko mu ñew mu laaj sëñ Cheikh fa fan la mu a déggee sëñ bi mu yëngu. mu dëkk ne fu mu ne fu ne ma wan ko fa ne ko bi buntu la mu sàggal la mu mu duggee andak ak mal andak ñoom ñoom ñi mu séddee kilif chef captain garab ñu ba mu njëkk a jot ca bitti bëgg ñii nag ko seetal ko benn buntu desa fi bu ñëw sëñ mat laamin joom nag ngam ko maxtaar si la ñu ngàmb fatafoor maxtaar ba fu ñu dem si buntu nekk danañu nuyoo ba kenn fay duñu soog a dem seet bunt ba ne biñ jëkk a jot Moxtaar ba gis ko nga xam ne nii bi sës bunt bi nga xam ne dara li si ci bitti ñu fekk ko ca rumba Moxtaar jox sëñ mën Lamin sa taxawaar ba Moxtaar jox sëñ mën Lamin sa taxawaar ba mu seet ko gis ko li ah. mm. di dellu si sëñ Modou Diakane moom si xarijan ak Abdoulaye Diop la woon ndax seet de kilifa kilifteen kii teggeen ñu dikk wax ko ko bu teggeenu maa oh. nag ñoom ñaar man day maa ngi ca biti ndax booba nekkiwuma ci dara lu mooy eh. ñii li ñuy def kenn waru koo seet kenn war du seet sëñ bi kenn dem fu la woowu waaye booba maa ngi am ni caat ak ñett laa toll ñoom mag lañu li ñuy def ci seen wërti di nga xam ne sëñ mu dem na seet ko mi nga xam ne yegg si nañ ba agsi ci bunt bi tam ni ñu ko xamee bu ñëwee loolu moom mag ñëpp xam nañ ko mooy bu ñëwee itam xaddamiku yëglu na bu ñu nuyoo waaye mel na ni dégguñu kenn ku wax ak ñoom ñu wuy ba ci biir bi ñu wéyee itam ci fi ñu njëkk jot rek fi ñu ubbee fa la ñu fekk bu baax ki mu tëdd ca melukaan woowee nga xam ne moom lañuy ñuy nettali jël ñu ciy xóot. sëñ Modou nuyoo kenn fayu ko mu teg loxoom ci jëmm ji bës ndànk. tudd yàlla julli ci yonent bi xam ni la suñ borom dige woon loola mooy liy agsi agsi tey an kaatib aasinun fi laa yamuutu abadan wa anna almawta allazi kaana mutawajjihan ilayhi في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت كل نفس سائقة الموت يا مصطفى بشير سني سني خرجا لأمام بشير سني كو سالنا booba nag moom itam mu daal di xam ni léegi li ci des mooy yan bi nga xamante ne ni moom la jàmbar ji yan woon loolu agsi na tey ci kaw boppam lam ko batale woon muy naa dem Touba te bu xat damm loola daat nay agsi ci boppam ginnaaw ba mu ànd ak ñoom ba mu demee itam foofu day fu xat fu xaw a jafee waxtaane foo xam ne ba mu demee daal ànd na ak ñoom ba foofu bi ñu yegsee itam la nga xam ne moo ko war ci ak dëgër moo ko war ci ak muñ ak ak takku fas yéene taxaw yi itam loolee mu daal dafay taxaw foofee ginaar bi nga xamee ne xam na ne kat dogal bi ñëw na suñu borom subhanahu wa taala lii lii la namm ni nga xam ne itam noonu la amee woon rek ca sàngam ba bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la yegsee te mu ni la ñàkk noon rek lay demee mu taxaw na ci lu saytu ak jappandal mbir mi noné néñu bi nga xamné lolu amna ci la daal lolu Cheikh Fatak Diop nettali na ko wax ci la daal wo señ Cheikh Khary jang Diop wax ko ne ko demal wool ma basir nee da ko salal non la ko waxe di woolu señ Basiiru nee na bi mu demee moom sëñ Cheikh Khary señ Cheikh Khary jang da fekk fofé ci señ Basiiru naru gannar bobu nga xamné ne moom wax muhammadat Mahmoud at-tandaghi Mahmoud nga xam ne kenn la woon ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ak sëriñ bi taxawoon ak sëñ Basiiru lool bi mu demee moom la fekk ci moom waaye nee mu fexe ba wax ak sëñ Basiiru ba woo ko daal di ko fee bàyyi bi sëñ Basiiru yegsee itam ci Cheikh Mamadou Moustapha mooy itam nee na ba jot xibaar beeg la ci aju lépp sëñ Basiiru ci boppam moo ko yabalaat ne ko demal wool ma Mahmoudan mu dem woo Mahmoud moomu di naaru gànnaar bu ñu waxoon léegi mu ñëw kon loolu itam bi ñuy tekki rek mooy moom itam fekk na ko ñëw na bi mu ñëw itam nee na ñoom ñu waxtaan ci lañ war a waxtaan yàlla dogal ndax boobu ñoom ñoo fi ñoo nekkoon foofu jege fa ba ñu waxtaanee itam ba tënk la ñuy tënk nee na yónni na sëriñ Maxtaar Silla ci sëriñ Balla Coro ngir mu xamal ko xam naa li xew ba loolu amee itam sëñ Balla Coro bi nga xamee ne yëg na ko moom ci boppam. wax nañ ne bi ñuy dem sëñ Modou Moussa ak sëñ Balla Coro ñoo ànd dem ci commanda bi. ci biir euh, euh, rapport boobu mu def ci la vingt 29 juillet aussi ci la xamle ni xew-xew bi ba muy xew kenn fekkiwu ko Cheikh Moustapha moo ñëw fekk suñu borom jëfandikoo la ko soob ànd na ak sëñ Balla Coro ñëw yëgal ko commandant wala l' administrateur de Diourbel ba ñu ñëw ba fekk sëriñ bi fu mu nekk ba xam ni. xew-xew bi am na. may ma Maxtaar Sylla ci sëñ Balla Coro waaw moom la muy wax ak moom sëñ Balla dem ànd ak maanaam ñëw ñoom ñaar rek ci oto maanaam baraad moo doon dawalal boppam lañu ñëwee ñu ubbi leen ñu dugg ca biir. ak maanaam gis ko ba xam ne mom moom la ñu doon jéem te mënuñu ca dara. muy tubaab eh, ya bu ñu wax paal yàggu fa woon. waaye gis na ko teg na ca bëtam gannaaw teg na ca bëtam ji tegul bëtam du mën wax ko maanaam dara du mën wax góor na dara. wax nañu itam àndale nag benn médecin nit ku ñuul koo xam ne moom lañu ñëwee moo ko seet ba constaté ba wéyal ni kii génn àdduna ndax sëñ bi ni mu daan dundee ak li ko daan dikkal ak génn àddunaam dañ koy confirmer tubaab yi duñ ko mën a gëm rek ci wax nii rek ni kii génn àdduna sëñ du wax commandant bi nag ni ko dama ko yóbbu ci këram ji ci tuubaa

Euh, ki nga xamante ni bii moo doon euh, euh, le gouverneur bi nekkoon au Sénégal. bi nga xamee ne ñi ngi delluwaat tam danañ foofee la ko Cheikh Moussa waxee ne ko moom kat da koo bëggoon a yóbbu ci dëkkam bi ñuy wax Touba fekk na boobu itam nee na bu ko ko waxee mu ne ko loolu de manu na loolu la ko commandant bi wax ci saa si ne ko loolu de dinaa ko yëgal sax samay kilifa waaye war naa mën a nekk yàlla dogal bi nga xamee ne loolu am na mu yëgal ko loolu moom itam mu nangu ko ca saasa. xamal ko sax ne ko nag moom kilifa yi danañ ko yëg ndax nangam waaye nag li tax mu li tax mu maye ko itam nee na mooy xëy na foofu bariwul jallaw jallaw yëngu bayu boobu itam gisu fa lenn daal luy tegtale ne daal lu ci mën a indi jafe-jafe ci biir mbooloo ma am na ca loolu itam la Cheikh Mamadou Moustapha daal tàmbali nag di waaj wàccaay wala ci aju jaareem diggante fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci guddi والممات بقاء عاسمي من السماء dogal ba agsi na xibaar ba rot na sëriñ tuubaa ñibbi na njàqare tàbbi na dënn ya rëcc ñépp rët lu kenn mësul xaar lu kenn mësul yaakaar lu kenn mësul xalaat sëriñ tuubaa dem na aljana seex mustapha des fi dékku àdduna wa saydallaahu tabaaraka wa taala أن كاتب عاشنون في لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه sëñ Basiir wax ko ne ko Mouhamadan Tandaxi ma nga fa naaru gànnaar la di boromub cër boo xamante ne wax na ni sëriñ bi dénkaane woon na ne bokk ci ñi ko mujj ci moom ñi koy taxaw Mouhamadan Tandaxi ba mu ñëwee ak sëñ mët Lamin Jóob Dagana ñoom la sëñ Moodu wax ñu waajal ko wàccaay bi muy demee Touba moo defee ñu daal indi oto bi muy safoor ba tudd Doudou Cissé ñu ni marque Delaay la yaa Moustapha yaa Basiru yaa man Lamin Jóob Dagana ndax ma dem tan laxyo ndax yéen xarijan maxtaasi man ba nga xam ne looloo dem nañ ba moom tegi fenn ba wóor sëriñ bi itam daal di nañu yóbbu ko Cheikh Mamadou Moustapha sant rakkam Cheikh Mamadou Bachir mu jiite yoon wa Cheikh Mamadou Bachir ànd ak ñaar ñooñu nga xam ne ñoom laa waxoon léegi ci ginnaaw mooy sëñ Mahmoud ak tandax yi sëñ Basiru ak sëñ Mat Lamine Diop Dagana ak sëñ Makhtar Silla ak sëñ Cheikh Khary Dieng ak Mouhamadan Tandax yi juróom ñi la ko sëñ Moussa booleel ak dut Cissé mi nga xamante ne moo doon dawal oto bi ñoom ñoo ko indi Touba. moo moomoon oto ba ñenn ñu wax ni beneen naar bu nekkoon foofu moo moom oto ba waaye li gën a wér daal mooy oto bi oto bi sëñ Balla Coro woon ab marque la ci lañ dugal sëriñ bi yóbbu Touba. Hmm, def ko def ko ci biir oto ba fekk na borom oto ba waxuma ko woon benn secret bi mën a xamee dara. ñu yëkkati ñoom ñu ko dugal ko ci oto bi juróom ñett ñoom ñu nag suñ bànn coro ak waarañ serkal bi ñoo ci dolli ko di fukk képp Abdoulaye Diop lew na sëñ sëñ Modou Cheikh Moustapha na ko Daaru Muti ne ko demal jox ko oto ne ko demal jël ceer na mu dagee sëñ bi Touba ñëwee ba ak si Touba yónnee nañ ci sëñ Mbacke Bousso yónnee na ci Cheikh Mahamadou Fadil yónnee itam ci mag ñi nga xam ñoo fi nekkoon lu mel ne que fekk na booba Cheikh moom du Lamine Gueye yónnee nañ ci moom sëñ Baara Gueye yónnee nañ ci moom sëñ Manoumbe yónnee nañ ci moom ak ñu mel ne ñu ma wax daal ba lu war a mat ñaar fukk ak juróom-ñett nee ñu mooy ñi nga xam ne ñoo te xew-xew boobu. rapport bi euh, euh, bi xew bi le 23 mom l'administrateur de de Diourbel ñëw na Touba doon xol na ñom ñi ngi doon tiit ay émeute am murid yi gisatuñu sëñ bi yëngu-yëngu yeeg doon mais nee na ba mu ñëwee ak dal la fa fek dañu dal di jëlone ben dogal bop dañu won ñëw di ziaré si barabu sëriñ bi 24 heures lañ leen may ñu def ko euh, Touba kon ci le 23 juillet ci la ñëw xool ba xam ndax loolu ñu waxoon mi ngi nekk euh, gis ni amul benn yëngu-yëngu murid yi ñi nga ànd ak daal ñëw di ziare ci barabu sëriñ bi bañ ca tegee ñaari fan la wax ni conseil famille bi ci la ñu daje kon Cheikh Mustafa Le ñuy wax officiellement ci le 25 juillet 1927 euh, euh, ci la doon xalif général des mourides wuutu ko tedd ci Xaadimu Rasuul Cheikh Amadou Bamba ba mu sëriñ bi jógee la waaye euh, ni ñu ko officialisé booba tubaab yi ñoonu yilif ci le 25 juillet 1927 ci la ñu décidé ngir borom daaru teeg ak ñoom ñëpp ñu daje ñu décidé ni Cheikh Moustapha mooy wuutu euh, ku tedd ci mu Rasul euh, Cheikh Ahmadou Bamba foofu aussi li tubaab yi tiitoon ndax tubaab yi ci seen rapport waxoon nañ ni sëriñ bi bu fi jógee kenn mënu koo wuutu mu mel ni boo déggee sëriñ Moussa Ka ci mars yëpp ku tedd ki xadim rasul ci Ahmadou Bamba ni mu waxee eh, doon na jafe lool yoonu murit continuer ginnaaw sëriñ bi ndax bi muy martial sëriñ bi moom sëñ Moussa Ka dafa jël jëmmam def ko mu yoonu murit ma ñëw fi jooy jooy yi wolof mbër ma defar réewi wolof baloo fa seeru am yëf te wootewul fetali sox moo naka mbir yéen ñi di mbër ku mel ni man mo lu ca war gumbu gu ndaw lu mat la fer ndey jene mes lu ngeen ca xam te amagul ku ko wamat te xamagul yoon wu jubit ku ta daw baraw lorit te xel ma dof nopp ye ya tëx xel may gëlëm di fërfëri rongoñ ye ya yuur di cer cër yi ya ca des di bërbëri di jéem a te ruuga lax saa boo xëyee dëkk mu di jooy mbaa mu yërëm tëlu ba yooy soo ko gisee gët yi xuuy mbaa muy palamtiku lu mu seex kon li bi doon xalaat am ñu demoon bay dute waaye liir boobay indaale woon laago yooyu yépp Cheikh Moustapha al Karim moo dindi ngumba ga ba muy gis dindi luuga ba muy wax dindi Euh, euh, euh, woppi xel ja ba mu doon nit jar ba bu mu fiy jógee en 1945 liir boobee doon mbër moo xamante ni lamb ju mu dugg upp làmb ja te mooy yoonu murid Cheikh Moustapha des fi dékku àdduna keroog la ko daam fal xut bu muy xalifaam jiital ko ci baatin mu donnu lislaam jag-jaglu wey na taaxati wey na ngir mbër ma dem na am denc wey na am joxe jot na xam jëfe jot na ngir Bàmba dem na waree